ay suuf ba sutantee i ndax ka jàll nu dellu si ni nu doon doxalee ma papa Alsaan bi mu nekkee fii fa mu joxoñ rek ñépp ànd fa pourtant xamul laa xamante ne tey góor gi mii xamu ko loolu moo loolu moo waaye mag ñi fi nekkoon am nañu mat ga day ni dinañu ànd in nekk wenn say in nungul ka in aar ka gis nga dëkk bii fii nu jëm fii nu jëm dama bëgg yéen suppi aw doxalin nijaay waxal leen ma loolu nit ñi dëkk bi ñagab dëkk bi moo la kilifa gin la xullee dëkk bi ba nu amee kilifa ya matadi ba ñu génnee indi naan waaye yéen matuña gis nga ak lu ngeen mën a dégg si biti professeur Gorgisis, moi, le coordonnateur communal ndombi Tanki parti ak fonction élective du Ben. Wa légui luñu fi hulo luñu fi hulo bu fekkente ne liñuy wax dëgg la ak nit ay waxam ba fekkee nit la ba fekkee kilifa la ay waxam ndax wara a méngoo ak ka say wax méngoowul ak sa du indale nan ànda du indale nan nekk benn waa acca mu dal temps yépp ñu ngi nan ànda indi far dëkk bi nan nekk benn nan wayloo nan bennoo waaw nu ne acca mu dal waay ba béree ba pare ba béree ba pare u daan in atte in ne la daan u topp mbedd la galgal xanaa daa gëmul sa daan waxew bii bi bii bi ban falou les gi mini mii bilan zéro le nom, bilan zéro Lolo, lolo, échec gu man li kep moo ma jox vous savez chaque personne est responsable de son temps les politiciens les politiciens du moment à Dialaw nun la Mané, bo élection yi rombé bu élection yi rombé te góor gi siis nous, responsable politique politiques fi nun sommes wax ak fu nous sommes là, nous ne li nous la nga je suis le président de ce mouvement là d'accord Ce nga vous nous dañu un mouvement Yeen mieux et autrement gëm nous ma au Sénégal mieux et autrement nous bu fekkente ne joxuñu góor gi si sëb cër bu 2024 te ànd nox kenn dañu kaa samp mu nekk nu candidat ñun foofu lañu jëm ñun li ñuy def ragaluñu ka li ñu def xam nañu ka fi ñu jëm leer na vision yu leer a leer a leer la am